asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi jàkkaarloo ñun te ñu seetaan kee bàyyi xel site internet yu fasantikoo yi nga xam ne ñoo ngi fii tey ci Daaru Salaam ci bés bi ñuy fàttaliku Serigne Modou Rokhaya moom Cheikh Mouhamadil Mamoun ci ki koy amal di sëriñ Fallou Gala Sylla di liggéey akonu boroom Daaru Salaam ñoo ngi toog ak kenn koo xamante ni bii ku koom la ci xam ndax taxawaayam ci réew mi waaye itam taxawaayam ci dëkk bi. taxawaayam ci ginnaaw Cheikh Ahmadul Bachir moom Serigne Abdul Xaadir Mbàkke di koo xamante ni borom pas-pas la borom pëstéef la ba ñu ko xamee ba léegi ci lefum liggéey Serigne Touba Xaadim Rasul lekk ci lañ ko xam mu di Serigne Moodu Mbàkke si moom Serigne Moustapha si ñun ñii nga xamante ni bii ñooy presse nekk ci réew dëkk bu sell bi di tubaa ba ci biir réew mi ak ñenn ñi nekk ci bitim réew sax mën nañoo wax ni kenn ku ne ci ñun ameel na ko njukkal ndax boot nañu. yiir nañu sàmm nañu waaye itam aar nañu jël ay alalam di ko joxe jël temps di ko joxe waaye itam oyof lool ci wàllu saayir ñun ñëpp ñu ràññee taxawaayam li ñuy diiru li ñuy ànd màggal karawaan képp pour màggal Tuuba gis nañ ni du sonn du tàyyi waaye tam kenn ku ne ci ñun da gis boppam ci jëmam ji cër bi ñu ko joxaat itam ci màggal Tuuba boobaak léegi muy cër yoo xamante ni bii Serigne Bassirou wóolu na ko jox ko ko mu koy sàmm yàlla na ko ci yàlla gën a kattanal gën koo ndamal ba kolteef gi sëriñ Muntaxa am ci moom Cheikh Bass yaakaar ji mu am ci moom yàlla bu yaakaar jooju fecceeku kon sëriñ bi ginnaaw bu ñu nuyoo siyaara pare xam sa digganteeg sëriñ falu Gala Sill waaye itam sa digganteeg Daaru Salaam diggante njaboot gépp di genn kon yaakaar naa ni kàddu yi seere yi nga xam ni dañ koy def tey bés bi nga xam ne ñu euh, fàttaliku sëriñ Modou Rokhaya waaye tuddee ko itam sëriñ Abdoul Wadoot euh, moom sëriñ Modou Farmata yaakaar naa ni bës boobu soo ñëwee kàddu yoo fi yëkkati rek dana doy sëkk nit ñi seere ni loo fi wax rek noonu rek la demee bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa sant yàlla julli ci sangub sang yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa di siyaare ki fi nekk Sëriñ Tuubaa muy Sëriñ Muntaxa Mbakke di ñaan yàlla sunu borom bàyyi ko fi te kàttanal ko te wéral ko liggéey Sëriñ Tuubaa bi nu ànd ko moom di nuyut xalifa Daaru Salaam bi xalifa Maam Cheikh Anta Mbakke di nuyu it maam Cheikh Anta moom sëñ Modou Rokhaya gis naa fi njabootam ay doomam ñu ngi toog nii eh, di nuyu képp koo xam ne tey bis bi sa bis la te muy sëñ Fallou Gala Sylla di nuyu itam yéen ñi nga xam ne yéen a yor jottali muy presse bi seen taxawaay ci Touba seen taxawaay ci réew mi te loolu defe naa man mën naa ko seede ndax ànd na maa yéen du ma juróom-ñeenti at du juróom-ñeenti weer du juróom-ñeenti fan juróom-ñeenti at ànd naa ko yéen te ànd bi ànd bu bu bu metti lay doon ci suuf si ak poussière bi ak déplacement yoo xam ne ay mille kilomètres da ko daw yoon boo xam ne defe naa keroog bi ñuy wàññi ko jógee Fuuta ñu xoolee contre oto bi ma yoroon ëpp na mille di dem te mosumaa gis ci yéen lenn lu dul bëgg Sëriñ Tuubaa ak bëgg seen métier bi yal leen yàlla taxaw def leen magi Sëriñ Tuubaa te liggéeyal lislaam moom mu ngi liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek ndax Sëriñ Tuubaa moom cadre bi mooy lislaam rek kon ku xëy ci toolu Sëñ Tuubaa xëy ngi ci toolu Yonent bi sallallaahu alayhi wa nañ fi tey nag euh, euh, seet sunu xarit boo xam ne wax dëgg yàlla ni nga ko waxee rek la demee muy taalibeeb Daaru Salaam waaye muy taalibeeb yoon wi nag kenn ku nekk ku soxla ak foo soxlaa da nga soxla Sëñ Fallou Galass Sylla ñu xam ngeen ko man xam naa ko ci ëtti murid yëpp nag su ma ko waxee mooy këri Sëñ Tuubaa yi ak fu sax këri Sëñ Tuubaa ku soxla sa bis da nga bëgg sëñ Fallou Galasse la teew ci kon dafa mel ni bis bi bisu ñëpp la ah bisu képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci yoon wi la moo tax ñu ñëw tey ah, ànd ak délégation bu am solo muy sëñ Fallou Diaw mi ngi nii ànd ak ñun moom Cheikh Gueye moom xam ngeen ko ndax eh, wax lu baax wàññiwul dara ñoom ñoo njëkk a feeñal sëriñ Touba ci yoon wi muy ahlu ngeen googu sëñ Adama Guèye sëñ ma Babou Guèye ñu am cër ci yoonu sëñ Tuubaa lañ sëñ Daam Ñang mu ngi nii toog sëñ Moustapha si sunu doom sëñ Mbay si bàyyam sax laa waroon njëkk a tudd mooy délégation bi nga xam ne jógee nañ Touba fekk fii sëtu Cheikh Maam Anta yi toog loolu lu mat a sant yàlla la ndax euh, lii moom day bis bu am solo suñ ma doroxee tuddee ko bis mooy tuddee bis rek maam Cheikh Anta wala tuddee ko suñ Modou Mamoun ndax kenn ku nekk diggante ma Serigne Touba ci ay doomam laa bëgg a wax suñ Abdoulaye nag laa ciy gën a cité suñ Saliou Mbacke suñ Modou Roqee lu nekk def na ko ci yoon wi defin woo xam ne nii ku jamono wante nag moom da nga xam ne kii Serigne Touba rek ko ñor kër maam Cheikh gii ma bokkee li yëkkati na ko yëkkati goo xam ne bu maam Cheikh Anta doonoon gannaawam ñëw di xool dana xam ne doomam ji lay wala sëtam bii taxaw na taxawaay bërëbët muy ay sët sëtaat it ba ci maam Cheikh Anta bii fi nekk tey moom itam taxawaay boobu la taxaw kon nag bu fàllu jógee ne day màggalal kooku bis mu ngi def lu baax loo xam ne kenn ku nekk fa nga nekk loolu war nga koo roy ci moom ndax màggal sa kilifa boo déggee ñu naan mawlidun nabiyya mooy màggal ci dugg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak màggal yonent bi màggal gii ñuy def it mooy màggal tuubaa Touba màggal Sëriñ Touba rek la mm. ndax na ma ko waxee woon lu simple la ñëw leen sant le yàlla mm. lenn lu sëñ Tuubaa mos a ñaan lu dul loolu man xawma ko suy ñaan yàlla lay ñaan wala yonantam waaye jurit yi nag wala murit yi nag mu ne ñëw leen sant le ma yàlla loolu ci loolu lañ ko mos sa déggee kon baatu màggal moom dañ ko fee fekk te sëñ Tuubaa digle ko kon kuy màggal rek yaa ngi ci ndigalu sëñ Tuubaa moo tax bis bi tey rafetlu nañ ko trop moo tax ñu bàyyi suñu yitt yëpp ànd ak délégation bii ñëw teew fii fas yéene ko ànd ak moom ba suñ kemtalaay kàttan euh, moom bu ma doon wax dama doon wax avocat yoon wi la avocat ndax lépp loo xam ne laal nga yoon wi la cee kàttanam ak man-manam dana jóg défendre ko ba ñëpp xam ne taxaw na loolu nag su bari woon dana am solo ndax média dama koy faral di wax bi ma ànd ak xal yi journaliste yi dama leen liggéey bi de war ngeen koo fonk bu baax a baax ndax am na réew yoo xam ne lañ am ci suuf bariwul waaye média yóbbu na leen foo xam ne fu nekk àgg nañ fa danaa ci tudd fu mel ni Israël Israël pays bu tuuti la. Mm. waaye am média bu baax tax na lépp lu mu dugg lu bari mu réussir ko. Mm. moo tax euh, média média du caaxaan. Mm. na ngeen ko doolee fonk te ngeen di bind dëgg di ko wax ngir yàlla. te bu leen par parparloo parparloo amut benn njariñ. deuxièmement bi itam lu ngeen gis te muy lu rafet ngeen war koo wax wax leen ko na amee rek su ngeen ci saxee loolu. yàlla mën na leen a dimbale. parce que damay faral di wax mbirum mbirum mbirum journaliste. gis nga Seydina bokkoon na ci saabat rasul sallallahu alayhi wa sallam la tax mu génn àdduna sabab ba bu ñuy wax sababu nu sol ci arab am na benn secrétaire am bu ñuy wax Marwan te moo doon journaliste ba nga xam ne moo doon bind mm-hmm. sababu faatu ga kenn ëppaliwu ko ci responsabilité ndax délégation boobu mu yebaloon doon changé gouverneur ba ca la bindee benn lettre au contraire bu bokkati bi mu bindoon loolu la doomu saaba yi di topp di ko topp muy sabab boo xam ne gannaaw yàlla Seydina Ousmane ca la faatoo te Marwan benn journaliste moo nekkoon secrétaire Seydina Ousmane responsabilité ma mu ngi ci biir. Mm-hmm. moo tax su ngeen di bind wax wax bañ rey nit ki wax a wax bañ jëblu si nit ki wax a wax bañ yàq alalam wax a wax bañ nangam nangam wax a wax bañ kii journaliste Watergate xam ngeen ko Nixon daal ump leen ci la ci xew lépp xam ngeen ko journaliste day métti mu noobal moo xam ne képp ku yàlla nattoo war ngaa gën a fonk sa kàddu gën a fonk sa xalima te sa micro bii nga yor wala muy caméraman bi bii nga yor war nga ciy dugal lu baax te bañ cee dugal lenn loo xam ne amulul njëriñ réew mi wax sax àdduna bi ñu ngi leen di sant bu baax te di leen ñaanal yàlla def leen euh, magi Sëriñ Tuubaa def leen kàttan bu mag ba nga xam ne lu ngeen bëgg a am ak lu ngeen bëgg ci yoon wi sëñ Tuubaa dana leen ko lu Fallou Galass nag wuy si ko wàññiwul dara lu baax rek la ndax guddeeg bëccëg ni ma ko waxee rek mi ngi ci yoon di daw bu baax a baax kon ñu ngi ñaan ci kàttanu sëñ Tuubaa di nuyu suñu doom yi toog di waa kër Maam Cheikh Anta yi toog suñuy doom ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal yéen tam bu ngeen demee ci kilifa gu màgg ngeen jotal ko sunu nuyoo sunu mbokk la sunu lépp la. Mm-hmm. loolu ñu ngi leen koy yóbbante bu ngeen demee ngeen nuyu suñu maam Cheikh Anta moom itam taxawaay ci daaru mu daa daaru salaam rafet na lool. ngeen di jottali itam nuyoo Cheikh Mamadou Bassir Mbacke porte-parole mm-hmm. jamono yii ma nga ca tool yi xam naa ne Isnul Abrar mm-hmm. yaakaar naa bu fi nekkoon kenn du ko fi jiite di jottali itam nuyoo Serigne Mountakha Mbacke xalif Sall di Murid mbokkum sëñ Fallou mii di ab sëriñam sëñ Fall yi taxaw taxawaay bu rafet ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di bala ak ñëpp tey ñaan jàmm ci réew mi di leen ko ñaanal di ko ñaanal sama jàpp di ko ñaan ci àdduna bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa